إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala boroom boobu nga xam ne ci ay dogalam dogaloon na lu jege ñaari weer ci gannaaw ñu doon jot ay ndigal yu ñuy wax ni tëj leen jàkka yi ñu daldi tëj jàkka yi comme na ko autorité ya gise woon dem nañ ba jëmmi jamono état bi def ay gëstoom feebar bi kenn xamul kañ lay jeex kenn xamul fan lay yem mesure yooyu ñu taraloon ñu ne kon nañ ko woyefal mu bokk ci loolu mooy dañu ibbiwaat marché yi dañuy ibbiwaat jàkka yi loolu bi mu amee am na ca yenn imaam yoo xam ni la leen seen xalaat may mooy déet ñun du ñu ubbi seeni jàkka suñuy jàkk na am am na ca ay imaam yoo xam ni la leen seen xalaat may mooy aha kay ñun dañuy ubbi suñuy jàkka yàlla dogal na ñu bokk ca ñooñu ca it la nga xam ne mun ci yóbbu mbokk jullit bu dee dañoo bañ feebar bi tasaaru ci réew mi moo tax ñu tëj jàkka ya dem nañ gis nañ nécessité ne marché ya munta ñàkk ñu ubbi marché ya nit ñaa nga fay daje tata ya munta ñàkk bàyyi nañ leen nit ñaa nga fay daje banque yaa nga ne nit ñaa nga fay daje boulangerie ngi ne nit ñaa nga fay daje loolee taxi boo dugg fekk fa ay nit bu ñuy wàccee ñi leen yéeg nit ñaa ngi fay daje lan lañ leen wax mooy ñu jël ay mesures ñu ne nécessité bi ñu am ba marché ba di ubbi car yi di daw boulangerie di ubbi nécessité bu toll noonu it la jullit ñi am ci seen diine di daje ci néegu borom ba ngiree jaamu seen borom jalla wa ala loolee nekkul rek payug àllaaxira gàncee xaar ku wax loolu xamoo looy wax mbokk jàkk dafay jouer benn rôle psychologique ci doomu aadama yi dafay jeexital ci ñoom ba da ngay gis ne ñàkk dem jàkk gi am na ñoo xam ne jeexital na ci lenn sax ci seen xel waxuma seen wér-gu-yaram loolee kon ñu gis ne kon ñun nécessité la nañu ubbi suñuy jàkk waaye nag ak ay mesures mesures yi yéen ñi nekk ci biir jàkk ji gis ngeen ko yéen ñi déglu xutba bi xam leen ne jàkka ji dañ koo teg amul kenn ku nekk ci jàkka ji tey lu dul sa diggante ak moom la médecin yi wax muy un mètre boobu dox na sa diggante ak moom wala lu ëpp un mètre bokk na it lu ñu wax waa jàkka ji képp ku fiy dugg dafay sol maskam fa lillahi alhamd ñi ma jàkkaarloo ñépp ñi ngeeg seen masque bokk na luñ leen ñaan ku fii ñëw na indi sajjaada loolu moo gën ci yow nga indi sab sajjaada booy dem nga yóbbu ko booy ñëw nga indi waat ko bokk na loo xam ne nii tamit dañ leen koo ñaan mooy am na ñu taxaw ci bunt bi di leen teeru ku ñëw ñu jox la gel nga laal ko bala ngay dugg même bu dee waxtu julli la dañ koy teg ci bunt ba balaa kenn dugg laal gel bi doogu dugg ci jàkka ji ndax sa gémmiñ nga mën a masqué mais loxo yi mënu leen a masqué te yaa ngi dugg ci néegub yàlla bi kon laalal gel bi bala nga cay dugg amoon nañu sax xalaat ci ne ndax douche yi duñ ko tëj donte ne ne ñu mujj gis ne mbooloo fu muy daje ay mag nekk fa nga tëj douche yi it mën na am beneen fitna loolu tax ñu bàyyi douche yi waaye ñi ngi ñaan mbooloo mi te duñu tay ci di leen ñaan ngalawaay douche ba ku fay dugg may ku ñàkk pexe képp kuy ñëw jàkka na waa jël këram doog a ñëw dem di dajaloo te douche ya nekkul loo xam ne nii lu am assurance la ci yow boo ko mënee moytu nga moytu ko xam naa ki nga xam ne nag daa ñëw ci jàkka ji njàppam toje fi xamul nu muy def bañ naa tardé waxtu julli kooku il faut mu dem wanag waaye daal ñi ngi ñaan mbokk jullit képp koo xam ne mën nga éviter di dugg ca douche ya éviter dugg ca la nga xam ne mooy douche ya bokk na ci programme bi ñu daan def fii ci weeru koor ci tafsir bi ñu daan def te yéen ñëpp xam gëneel bi nekk ci daje ci néegub yàlla bi di jàng téere borom bi ak la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dige loolu gisoon nañ ne mënuñu koo neenal rawatina ba weer wi sosoo ba tey ñi miin bokk ci groupe jàkka ji ak yeneen réseau yi koy séddale xam nañ ne fuñ masaan daje te suñu waxtaan boobee ñu tuddee su l'ombre di ramadan muy kepparu ramadan lañ koy tëjee mooy yàlla ñu yàlla wërsëgal bañ dellu ca jàkka ja di fa jàngat téere borom bi loolu it moo tax ba ñuy dajawaat buñ julee takkusaan ku nekk fa nga toog dand sa morom un mètre noonu la ñuy tafsiré lañ daan def na ko jekk dañ koy xaaj ci digg ba ngiree mbooloo mi seen toogaay bañ a yàgg ñu barkeelu rek ku ni kuy dem jóg dem mi ngi noonu lii nga xam ne mooy timis bi ak gée it gis nañu ne ak état d'urgence bi am ñuy pare 9 heures ñu koy commencé 9 heures bu ñu bëggee xaar ba waxtu gée bi jot dëgg ñu julli normal ñu ëpp ci ñun ah 9 heures fekk ci jàkk di leen fekk bala ñoo dem seen kër 9 heures passé ca loolu mën naa jur fitna comme l'islam may nañu ñu boole timis ak gée looloo tax ñuy boole timis ak gée képp koo xam ne ni ñëw na ci jàkka ji ngalawaay fekk jàkka ji fees na na taxaw ca mbedd ma mu julli loolee moo gën ci moom gën ci waa jàkka ji loolu ñu bàyyi ci xel bu baax lii mbokk benn laytaay la woon boo xam ni bëggoon nañ ko laytaaye suñu xutba bi tey gannaaw ba ñu yàlla subhanahu wa taala ah teqalee lu jege ñaari weer yoo xam ne nii xutba amu ci bu loolu passé mbokk ñi ngi dugg ci biir weeru koor ñi ngi dund fukki fan yu mujj ci weeru koor loolu nekk ngëneel ci biir ngëneel mbokk weeru koor mooy weeru xette li bu yàlla jagleel jullit ñi keroog xare badr bi nga xam ne moom la yàlla tuddee yowmul furqaan yàlla teqalee ci diggante dëgg ak fen xare boobee gis nañu ni mi ngi amoon ci weeru koor suñu borom yàlla wàcc ay malaaka ñu ànd ak jullit ñi dàq kéeféer ca la lislaam amee doole ba suñ jamonoy tey keroog la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ay yàlla bu la neexoon kenn dootu la jaamu ci kaw suuf donte ne du la yàqal dara ay yàlla mbooloo mi boo leen dimbaliwul islaam fi lay yem mbokk yàlla wàcc ay malaakaam dimbali leen loolu mi ngi amoon ci weeru koor la nga xamee ñi ni mooy makk gee di capitale jullit ñi tey ci weeru koor ca mooy juróom benni at gannaaw xare badr la yàlla dooleel ab yonentam mu ñëw ci weeru koor ubbi makka mabbu lu fa nekkoon ci ay xërëm ba suñ jamonoy tey ji kadduug ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di fa jolli ba suñ jamonoy tey mbokku suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam daani itti woo weeru koor jarul wax waaye na ngeen xamee ne day bu dee fukki fan yi mujj yi moom moo ca desoon suñu ay Aysa nee na yonent bi day takk ndigam takk day takk li ñu tuddee ab siram ay sori ak njabootam di dundal guddi ya féete ca jàkka ja ku mën a julli ci kër gi mu yeera yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan yi mujj yépp da daan dem ca jàkka ji wiit ak boroomam jalla wa ala da daan xool ku mën a taxaw julli ci kër gi dana la yee góor ak jigéen ñépp ànd di julli ngiree sàkku la nga xame ne nii mooy ngëneel bi nekk ci fukki fan yu mujj yooyee loolee nga xam ne taxaw julli guddi di jàng téere bi yàlla bi di rukkoo ko sujuud bokk na ca yoon ba gën a gaaw ngir jegeel nit ki boroomam suñu boroom subhanahu wa taala nee na ñi may fàttaliku lu bëri ci góor ak jigéen maa ngi leen di waajal baal leen seen mboole mi bàkkaar ak pay yu yaatu ci biir aljanna abi hurayra abi saïd al qudri ñoom ñaar ñëpp nettali nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn góor gu yeewu guddi yee soxnaam ñu julli ku ne ñaari rakka lu dul yàlla boole leen ci ñiy tudd yàlla lu bari ak ñi tudd yàlla lu bari ca góor ñi ak jigéen ñi ñu yàlla waajal njéggal ak aljanna ànd nag koo xam ne yemu ci yee soxnaam waaye daa yee soxnaam yee ay doomam yee képp ku mu dëkkal ñu taxaw di jaamu yàlla ngalawaay mbokk yiw woowee bu leen jàpp mukk ni lii di qiyaam amul ca jàkk ya tarawih amul ca jàkk ja ngeen bëgg koo xañ seen bopp dajaloo leen góor ak jigéen julli leen la nga xam ne man ngeen ko bu ngeen defee fukki rakk ak benn baax na su ko ëppee baax na lu ngeen ca man baax na loolee ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk guddi suñu borom da koo jàkk leen jaamam yu baax yi ndax xam nañ ni la gën a neex doomu aadama yi ca lañ koy def doomu aadama bi yenn doo coono dara gunte neex nga dem nag tëdd sablal mi ngi noonu di nelaw suñu borom yàlla nag ñay bàyyi seeni nelaw taxaw di ko ñaan fokk mu may leen mu ne amul benn guddi lu dul ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala am na ca heure boo xam ne dana ca nangu ñaanu jullit ñi ca loolu mbokk mooy buñ demee ba guddi gay waaj a jeex suñu borom naan jaam yi ana ku may ñaan ma may ko ana kuy sàkku xettali ko ma xettali ko ana koo xam ne nii daf may woomu wuyu ko ba baa fajar di jot am maa nag mbokk buñ demee ba fukki ba laylatul qadr bi ñu yaakaar ci fukki guddi yi moom dootul nekk ab heure waaye day nekk guddi ga yëpp guddi ga yëpp suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni maa wàcce alquran ci laylatul qadr moo lu lay xamal luy laylatul qadr laylatul qadr moo gën junniy weer malaaka yi dañuy wàcc ànd ak kilifa gu màgga muy jibril alayhi salaam ñuy indi mbiri yàlla yim dogal ci ay jaamam salaamun muy nekk guddig mucc mucc ci malaaka yi ànd ak jullit ñi di leen ñaanal yàlla di leen nuyu di leen ñaanal yàlla loolu tax na ba bépp jullit bu tombe woon nga taxaw di ko naafila yàlla baal la lépp loo xam ne jiitaloon nga ko ci bakkaar loolu mbokk mooy leelatul qadr mu bokk ci ngëneelu yàlla mu nëbb ko nëbb ko ci biir fukki fan yi ngir jullit ñi mboola seen ittewoo mboole mi fukki fan yi loolee daan tambeeg leelatul qadr gannaaw ba juróom-ñeentee ca des dana nekk ngëneel bu dolleeku ci bu ñu xamoon ne bii rek mooy waxtu wi ñu sàggan yi ca des lii mbokk kon mbir la moo xam ni ku nekk ci ñun da cee war a bàyyi xel kemtaleel kattanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanu dundal fukki guddi yi na am ci taxaw ci taxawaayam bu yàgg ba ba tànkam yi di néew yi ba ba soxna yi di ko yërëm yàlla baal na la say bakkaar mu ne xanaa man duma doon kuy sant yàlla ngal bay roy leen ko ci loolu daana màggal fukki guddi yi ci bari lool loo xamee ne nii da koy nekk di tudd yàlla tudd yàlla guddi ak bëccëg loolee mënul gën a ñàkk lu mel ni li ñuy tuddi eeg ci kaaf moom doon def bàyyi këram féete wa jàkka ja sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii mbokk bu gannaaw loolu gis nañu ne bokk na ci fukki fan yi lu ci yàlla yoonal mooy li ñuy tuddi eeg ci kaaf ñu reye ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nga xam ne suñu yaay Aïcha radiyallahu anha daana wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mboolem koor yi ko fekk Madina fukki fan yu mujj yi ca jàkka ja la ko doon jeexale ba mu fi jógee ay soxnaam continué loolu di faatu benn di faatu di faatu ba soxna yépp jeex fukki fan yi mujj yi dañ daan féetewoo ca la nga xame ni nii mooy jàkkare loolee mbokk ngëneel la bu rëy ñeel képp koo xam ne mën na ko waaye su dee yàlla mën loowula lool kii nekk istikaaf lan lay def mu ngi jege boroomam jalla wa ala di wéeteeg boroomam di wan gannaaw àdduna ak coono yi àdduna jege boroomam wéttili ko di xalaat bis mi ngi ñëw ay mbokkam jàpp ko gas pax dugal ko ca mu wéet fa moom rek ak boroomam loolee waajal loolu mooy la la ixtikaaf di fàttali muy wane ne bu dee jëmm ji mun ca nekk ixtikaaf ca jàkka ja ngalla waay xol bi ne nekk yi itikaaf te muy foo mën a toll ci fukki fan yi bari la loolu zikrullah heure boo jekkoo kaamil ba jëlal jàngal sa kemtalal kattan guddi loo man ci naay fi la defal mi ngi noonu même bu doonte ne sa kër nga nekk wala même bu doon bu doonte ne sa service nga nekk loolu ñu bàyyi ko xel bu baax ci la nga xame ne ni moom mooy fukki fan yi ñu yéene ci jéem a jege suñu borom borom boobu nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanu ko ñaan allahuma inni asaluka lazata nazri ila wajhik wa shawqi ila liqaik ay yàlla yàlla nag ma may bànneexu ma jàkkaarloog sa kanam bu tedd gi di ko xool yàlla nag ma may ma am xiir ci daje ak ak yow noonee jullit di amee xiir ngir dajeeg boroomam yowmal qiyaama ndax teraanga yam ko fa dig noonu it la jullit di bëgg di wéet ci ay place wéet ak boroomam di ko bakk di ko sabbal di ko jàng di jàng la nga xam ne mooy tiiram yàlla bi loolu it képp koo xamee ni ni yaa ngi cay def ngay fàttaliku yit la suñu borom waxoon waskur rabbaka fi nafsik tadarruan wa xufiyatan wa duna aljahri min alqawl bilxuduwi wal asaab del tudd sa boroom ci sa bakkan doon koo xamee ni da nga ànd ak tiit waaye bañ a doon du ko déral ci ay kàddu te mooy bu dee jàkka ja am nga ñeneen ñoo fa nekkal ngalla waay la ngay wax yemelu ko ci sa bakkan ñoom it dañoo am ay askar yu ñu war a def wala ñuy soxla woon nelaw na doon heure guddi wala heure bëccëg maadaama tuyaaba ngay wut si tuyaaba joojee bu ci seytaane dugal lor mbokk julit lii mbokk dañuy gis ne ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu bàyyi xel lii nga xam ne mooy waxtu wu mag bi lii nga xam ne nii ci lu ñu nekk borom bi subhanahu wa taala wàcce na alquran waaye wàcce na ay dogalam ci guddig leylatul qadr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom programme am bi muy doxal ci at mi guddi leylatul qadr la koy jox malaaka yi malaaka yi ca la ñu koy xam ca la ñu koy wàcce ña war a dee ña war a am wërsëg ila axiri loolu it jamono bi yàlla di jox malaaka yi programme bu la fekkee yaa ngi toroxlu ci kanamu yàlla yaa ngi yaakaar yàlla di jéggulu yàlla di ñaan yàlla yàlla moomu moo yor ab téeréem moo cay far lu ko neex di ca saxal lu ko neex mën na am nga bokkoon ci ñi texee di waaye guddi keroog yàlla far ko boole la ci ñi texe nga bokkoon ci nar a ñàkk ba faw guddi keroog yàlla far ko bokkoon ci nar a ñàkk jabat ba faw guddi keroog yàlla changé ko looloo tax muy guddi goo xam ne ku ko xamoon day war ngaa góorgóorlu sa kemtalal kattan guddi gi yépp moom nga taxewu ko ndax la ca borom bi di wax salaamun hiya xatta matla il fajr doonte ni ne mooy guddig ñaan guddig jokkoog suñu borom allahuma suni ay aisha radiallahu anha laa doon na yonent bi salallahu alayhi wa sallam waaw su nee ne man damaa dëppoo guddig leylatul qadr lan nga may sant ma def ko mu ne ko del baril wax allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ay yàlla yow yaay jéggale te da ngaa bëgg ak jéggal yàlla yàlla nag ma jéggal loolu muy wañe ne yàlla daa bëgg jaamam tuub ba mu jéggal ba mu jéggal xam nga lu des soxol rek yow mi nekkoon ca njaaloo ga sàcc ga karte ga njombe gu ne def nga ko ci kaw suuf bis boo xam ne wér na ci sa xol tuub nga tuub gu sell ba baa ngay dajeeg sa borom fas yéene woo ko def allah subhanahu wa taala huwa afuwun yuhibbul afwa dafay jéggale bëgg jéggale waaye it naka noonu it del jéggal jaami yàlla yi ndax yàlla daa bëgg jéggal te ni nga bëgg ñu jéggal la noonu it nga war a jéggale jaami yàlla yi buñ la tooñee soxna la doom la ak kum mën a doon xattaa bu dee ab yéeféer bu saggan sax nga jéggal ko te yàlla tax loolee da nga cay am yàlla bëgg la ndax yuhibbul afwa ay kon it noonu mu bëggee jéggal noonu lay bëggee ña nga xame ñi nii dañuy jéggalu mbokk fukki fan yaa ngi nii ñu góorgóorlu ci lépp loo xame ni ni mën nañ ko ci def ci lu baax digle ci lu baax mën nañ ko ca la nga xame ni ni moom mooy bari suñuy ñaan booleeg subhanahu wa taala yaakaar ci yàlla ne yàlla day du neenal mukk mukk mukk ah yii népp jaam boo xam ne dafa yaakaar dellu ci moom mbokk lii kon gis nañu ne ab tënk la buñ doon tënk gannaaw ba it di ñaan yàlla subhanahu wa taala lii nga xam ne mooy mbas mi nu wàcc ci kaw suuf di corona bi yow jullit gëmal ne armée la bu yàlla wàcce yàlla mi la moom moom picc yi moo moom virus yi moo leen jox ndigal ñu ñëw moo leen di wax dem leen fi moo leen di wax bu leen yegg fee moo ko yëkkati heure bu ko neexee loolee jullit da nga ko war a gëm donte ne it noonu nga war a gëmee suñu borom moo ñu wax ci ab téeréem xuzu xisrakum jël leen seeni matukaay ngir mucc benn musiba du dal ci nit ki lu dul ci ndigalug yàlla waaye nag jëlal sa matukaay gannaaw ba nga boole ko ak ñaan yàlla nga gëm ne toog di ñaan rek ba pare na juma fu def naa samay zikr lu ma neex def islam jàngaliwut loolu jël sa say matukaay ba mat sëkk comme ni ko yéefir yi jàppe ba pare jàpp ne da nga mucc islam jàngaliwut loolu islam lam ñu jàngal mooy la nga xam ne xam nga ko ci matukaay yu lay musal jël ko ba mat sëkk gannaaw ba nag nga wékku ci yàlla wékku gu mat sëkk su dee mucc nga nga sant yàlla su la dala dalee it nga xam ne lii mooy li yàlla dogal nga muñ ko muñ ko rafet te rafet njort ne yàlla bëggal la yiw moo tax mu mu mu teg la loolu ci àdduna ak àllaaxira mbokk mi ngi noonu ñu bañ a fàtte askar yi nga xam ne yàgg ngeen ko dégg kenn ci yéen bu xëy bu mu fàtte mukk wax qul huwa allahu ahad qul a'udhu bil falaq qul a'udhu bin nas naka wax ñetti yoon suba naka wax ñetti yoon ngoon booy tëdd boo mënee nga def ko ñetti yoon raay sa yaram defaat raay sa yaram ba muy ñetti yoon bu leen fàttee aouze li nga xam ne ni mooy bismillahi lazi laa yadur maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim zikr boobu ngeen di ko def ñetti yoon mi ngi noonu heure bu ngeen diwee ci place ca jàkk ji ca la bokk place bu ngeen dugg wax leen a'uuzu bi kalimaati llahi tammaati min sharri ma xalaq maa ngi làqu ci gannaaw kaddu yàlla yu mat yi ci ayu li mu bind yonent bi alayhi salaam nee na amul benn place boo koy wax ba pare am lu la fay lor su ko defee mbokk mi ngi noonu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mboolem jàkk yi nga xam ne dañ koo ubbi ci kaw suuf képp koo xamee ni nii dafa am feebarub corona yal na yàlla fegal ñu ko mu fay ñëw yal na yàlla subhanahu wa taala may ñu kenn ci jaami yàlla yi bu mu jële mukk korona ci néegu borom bi loolee ci kattanam la gannaaw ba yét ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi dogal ci ay jaamam la ko ca neex ña nga xam ne ay julit lañu ca jot caa faatu yàlla na boole leen mina shuhada àjjana di seen wàccuwaay mboolem ñu nekk ca lalu hôpital ya wala ca lañu kër ya yàllaa leen gën a xam yàlla na yàlla saafara leen ci jàmm ña nga xam ne ñoo ca des ca dalu leen yàlla na yàlla aar leen ba lépp lu cay lor yàlla teggil leen ko ca wàllu feebar ba ca wàllu ñàkk ga mi ngi noonu la hawla wala quwwata illa billah اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الاسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين